UCAB FM. li gën a fës ci yéenekaay yi. Papa Saer Mbaye. bis. mille rapport cour des comptes ba yéen yu bëri ñoo xëy dina nettali rek ne jamono ji nag yoon mi ngi tàmbalee jublu ci li nga xam ne kon moom a leeral sunu naataangooy xëy na ci ci l'enquête a nga xam ne kon moo jëm ci wàllu wi su naataango di xam ne ne kon ay bés gi lañu fas yéene eh, jublu ci wàllu wi l'observateur yéen a kaay ngi koy dëggal rek ne jamono ji kay yoon eh, fas yéene ci wàllu ko rapport cour des comptes nga xam ne kon eh, coow na ci lool ak rek lu jëm ci mbas mi nga xam ne kon ñu bëri nee nañu yoon wa mu waroon a jaar dañu koo jàddal dugal ko ruq su naataango yi di xam ne ne jamono ji nga xam ne kon ca lañu toll kay lu jëm ci wàllu xeexu mbas mi beneen xeex nag judd na ca mu dem ci wàllu xeexu koppar yi nga xam ne kon moom lañ ci doon dugal ngir ñu gën koo mën a leeral ba tey yéen yëglekaay bi di xam le rek ne am na weneen lu yees loo xam ne gis nañu ko ci lu jëm ci wàllu rapport bu cour des bi nga xam ne kon génn na ab liste ñenn ci ay tur yoo xam ne kon dugg nga ci mbir mi te nag sa loxo takk ca rép ci rapport cour des comptes bi

Sall bu forum civil mi nga xam ne kon moom itam ma nga ca yéenekaay bi xëy di xamal ne ñoom taxaw nañ tem lu jëm ci wàllu ger gi lan bëgg a dakkal ci biir réew mi euh, am na jéego am solo boo xam ne kon def na ko ca mu njaay siise moo koy dëggal di xam ne rek ne lu ci mën euh, a xam ne kon taxaw nañu ko ca daal ak yoon wi nga xam ne kon jaaragu nañu ko ca nee na loolee dal na xel ndax nag ginnaaw kon yoon jóg na ngir rek mën a lijjanti loolee euh, dala ndeygu nam xel waaye nag lanu bëgg rek bugguñu ñu sëlëm nit ñi rek yëkkati mbir mi ba ñëpp ne gongo ñu tegaat ko ci lañu bëgg mooy nañ ca dem ba jeex mën a xam dëgg-dëgg lu jëm ci wàllum koppar yi fan la ba tey yéenekaay bi la rek ne jamono ji kay am na lu toll ci fukk ak ñaar ci ay recommandation doon ay càkku def yoo xam ne enquête kat yi na ko caa def yéenekaay bi di xam le ne jamono ji nag lu jëm ci wàllu ko joxe digal lii nga xam ne kon jox koppar yooyu la ngeen ñu gën ko mën a leeral enquête ba kon door na ba tey yéenekaay bi di xam la rek ne képp ku ca laaloon bay boo nga waajal sa bopp ngir rek mën a fexe seet yaatal wa di xam ne rek ne jamono a ki nga xam ne kon moom di Alioune Tine la ne naka lii bokk na ci càkkuteef goo xam ne kon askanu ñëpp moom lañ doon sàkku mooy yoon na def liggéeyam ci lu jëm ci wàllu wi kon naka mbir mi nga xam ne kon ba tey ma nga ca mbir mi dellusiwaat ci ubbi enquête bi nga xam ne kon jëm na ci wàllu ko lu jëm ci wàllu xaalis woole yéen kaay bi di xam la ne askanu ñoom ñu bëri bëri lañu bëgg rek mooy mbir moom na leer moo xam ci kii wala lu ci wàllum koppar yooyee ko dugal ñi ko xam la ne a taxaw yoon na xam ne askan nag ñoom la nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko lii di enquête yooyee moom na askan loo xam ne ñoo ko cay séentu yéen kaay bi di xam la ne lu ci mën di nemee ko dafa bëri ñoo xam ne kon jege ñaale njiitu réew mi la te lu jëm wàllu koppar yi ñoom dañ cee gundaandaal lool ndax ñoom mbir moomee dana mën a def dara ci seen kaw yéenekaay bi xëy di xam ne ay kàddoom su naataango yi di xam le ne lu jëm ci wàllu ko li nga xam ne kon moom moo di rapport boobi le kenn du ko mës a dugal ci ay tiroir loolu lépp danañ ko topp ba mu jeex tàkk ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg jëf la nekkee procureur yéenekaay bi di xam le ne ma ngay dalal xel wi di xam le rek fekk na mbir moom lépp loo xam ne kon aju ca daan ca dem ba jeex le quotidien yéeni kaay ba tey ma nga bi nga xam ne ko ubbi nañu ko ci nañu bàyyi ba xam rek mbiri fan la wànnante mujj ak ay gëtam moo ñu ne njiit la di président Abdoulaye Wade moom nag ki président Macky ki président Abdoulaye juróom benn weer yoo xam ne kon dikkoon na fi ni ki rek ñaar fukk ak juróom yi moo ko taxoon a kon jamono ji foobaat nga xam ne kon moom njiitu réew li nga xam ne kon moom ma parti démocratique sénégalais eMédia point sn yéeni kaay bi moom ak ñuy nettali aw boo xam ne kon am na ah, ci fi nga xam kon moom moo di ci diggante Niger Nigéria jàpp Burkina Faso xalifa ah, bu Niassène doon rek kii di ah, Cheikh Mahi Niass ngay naqarlu li nga xam ne moo di song gu song doon yoo xam ne kon danoo bowoon ci diggante Niger ak a amal ko ziar yéenekaay bi xëy di xamal ne nag ay def ko tu ñaaw def ñoo leen song fukk ak juróom-ñett faat nañ leen ca moom kilifa mel waaye itam di sàkku ci gouvernement yi nga xam ne kon ñoo seq CEDEAO ñu jëmmal seen ñu gën lu jëm ci wàllu kàddu yoo xam ne kon yëkkati nanu ko ca Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre del si rek ci ci taxawaay bi nga xam ne ko njiitu réew mi amoon na ko ci ak yéen ja mu ca del si ab vidéo boo xam ne kon ma ngi ñu koy nettali waate ba si njiitu réew mi nga xam ne kon ay kàddoom ma ngi ko cay fesal laata nag sunu naataango dañu fesal lu jëm ci wàllu ko ubbite gi ak taxawaay bi nga xam ne taalibe yi taxaw nañu ko ca mbokk yi ne kaay ngoog dig dajee lëg